bismillahi wa ala millati rasul wa manhajil qadim eh. fi nu tàmbalee mooy yàlla yonent bi ak ki ñu wóolu liggéeykatu yonent bi boo nee yàlla ni yonent bi ni xaadimu rasuul leneen loo waxati ci biir lay dugg fii liñ fi war a wax lañu fi wax liñ doon wax wax nañ ko ci suba li xale yi doon junji donte ci nasaraan la itam daanaka amul wax ju ci dolliku xanaa fàttali ne àdduna ñetti fan la démb tey àllëg li xewoon démb lan moo ci rafet te ñu war a fexe muy gën a rafet lan moo ci baax te ñu war a fexe muy gën a baax ñoŋal ko lan moo koy ñoŋal lan moo ci baaxul mbaa lan moo ci rafetul te ñu war ko moytu ñaari baat yi moo am saytu ak moytu li ngay saytu mooy li ñu taamu li ngay moytu mooy li ñu taamuwul ndax li muy yàq kon la waxkat ba wax dëgg la àdduna ñetti fan la démb tay ëllëg

ñu xool tey interprétation bi may def moy fi sabahil yawm fi ta'zimi tay ci suba ci magal li fi xew ak li nu wax ba tudale ci lu ñuy tudde kurelu xarnu Cheikh Bass Abdou Khadir legui la fi jóge amna luma ko wax mu war ko wax ak kilifa ga wala defena bu ñu ba ca kanam ñepp dinañ xam lan la tay dañuy magal magal nañ ci suba di magal ci ngon gi di magal ci guddi gi muy ñett temps yi lepp gennul yalla gennul yonent bi gennul Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul way ñu wara wajal ëlëk ndax tay léegi timis jot ñu note kon ñu war a waajal ëllëg ëllëg nan lañ koy waajale nanu ko tedd ki waajale ba def nu ni mënu def nanu ko tedd waajale ba def nu ni mënu def tuddee nu ay muridin ba noppi ni nu uriil wa ci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila def na ay murid ba noppi nag def nu ñetti xaaj ñetti catégorie murid kep ak murid sadiq ak murid sadiq wa nabi Bima mujjé wax ci sama wet ci la bok ndax bu fekkente ne man nga jang khasside rek da koy setantal ci digënté temps ak espace ci fasaha koku moy nabil annubala yooyu nag plus réellement ñoñu la ko tedd kiy wan yoon ñokay won yenen ñaari mouride yi ci dess nama ko waxe won ci suba rek foo nu fekk ñetti catégorie lañ nan fexé bok ci nubala wi lu vague la nak intelligence dafa vague buñu koy wax positivité tax waxu ñu négativité tax duma ko guddal ndax lima warona wax xale yi wax nañ ko te ku déggul ni ñu ko waxee itam ku ko dégg bu la jegee boo ko laajee mu leeral la ni la lii la ñu wax man dama koy tënk rek mooy réew mi daal unité bi fi war a am sur le plan politique nag laay wax mais politique de vérité moo xam référendum lay doon moo xam leneen lay doon élection yi bari na tegaloo na li ci xew ci ay caaxaan bari na yooyu yëpp nañu fexe xewal lu bees ni fexe xewal lu bes moo ne lu mën nek Sénégal mën naa xewal lu bes loo xam ne day yéem ñëpp te du tax ñu tudd république islamique nga Arabie Saoudite république islamique la ndax lii xew ci réew yi ndax gis ngeen mu xew fa dañuy tegtaloo ci wax yàlla loolu moo tax waaw lu ko nuru bu fa xewé itam ngelaw lay doon da fay romb jàll waye ko na gis na nañuy dundé ay xulo xex ak politique ak opposé wo ñi xiro ka nga yo amu fa ñun nak ñu wara dem ci mat bu ci fay dellu ci lu ko tedd ki bam ne borom wajjal qulubana ala tawadudi waxna naa ko suba bila tanazuhin la ca tek wala taxasudi la ca tek wala takhasumin la ca tek wala tadaburi la ca tek ñun Sénégal bu ñu amé problème ñoko yobé sunu bop légui nak xanaa luy jot jot na ba cheikh bass dem ci serigne muntaka lama ko wax duma ko wax ci radio bi way lima leer moy dina ko duggal ci nopp serigne bi serigne fallu me ñing koy gëreem bu baax dafa bok ci xalé yi nga xamanteni bi wax deug yalla bu len ñepp royé waaw leen ñepp royé waaw legi mom pass pass bi gëna a legi say wi gëna a lolu motax dañu len di sante nak yéen ñi donte magal gi mo len indi itam waaye fii ci pàkkub Seydina Ousmane bi faaw ñu sant leen fi yéen ñi nga xamante ni bii yéenay tas xibaar yi e, am na nu ñu ko bëggee woon xaj na daa wërta doone noona fii xaj na soowu la war a doon moo tax rendez-vous bu soowu lañ leen koy jox li nga xamante ni bii mënuma ko ñàkk bañ a wax daal ñi nga xam ni ñooy politique ñi nekk ci pouvoir ak ñiy opposé yëpp nañu jéem a ànd doon benn ñu tas parti yëpp ñu tas parti yëpp def un parti national un parti pour tout le monde waaw képp ku am xam-xam ba noppi ñuy passé ñëpp examen rek ñuy passé ñëpp examen waaye coow lu bari na xëccoo bi bari na ku nekk bëgg doon chef loolu mënut a nekk ku nekk bëgg doon chef loolu mënut a nekk parti yu bari yee ko waral amul ci benn adduna amul fenn fenn ci adduna bi réew mu am matul 20 millions d'habitants. am ay téeméeri parti lo daa am fenn ah caaxaan yooyu nañ ci jog mo xam référendum lay doon mo xam lu muy doon wala ah. ñu ñew ci parti Serigne Touba ñepp ñew ci parti ku tedd ki parti yépp tass ñu ñew ci parti ku tedd ki bu boba nak lañ doon xam bu ñu amono bu ñu ñëmé won mbaa ñu comprendre loolu Macky moo am majorité fi ñu toll à l'Assemblée nationale bu ko neexoon loolu am jarul ay référendum ak dara na ko wateelu rek ni parti amatul c'est fini parti amatul parti bi Serigne Touba moo fi nekk rajawtun qiyaadal hizbi lillahi wahdahu bi qatti lazi yuhyi bihi xayru islam tey bu ñu ko ñemee woon bu ñu ñeme woon loolu adduna bépp di ko coow ñu ne Sénégal amatul parti benn partie fa am benn parti moo fa am muy parti de la vérité bu ñu ñemee woon loolu dootoo gis xale buy sànni xeer dootoo gis xale buy taali pëna dootoo gis takk der buy sànni lacrymogène ñëpp àjjana la ñuy nekk kaso yii dootu am kaso yii déedéet bu boobaa ku ñu jàpp te ngay nekk prisonnier fa ñu lay yóbbu daanaka da ngay noos wasalaam